you

à la démocratie, c'est une atteinte aux droits de l'opposition et également c'est une atteinte au pouvoir législatif. Parce que nous sommes Marissa Nia, nous sommes que députés au groupe représentent le pouvoir législatif. Et le plan normalement, qui am na war nañ dem fu fu neex pour constater situation Le président Ousmane Sonko une ordonnance de Justice, teg en résidence surveillée donc lu le dispositif bi dispositif mo après ñuy naan wéy dafa wara dem procès mais où est le procès équitable où sont les droits de la défense ko xam yow condamné guñ tu es présumé innocent donc nous ñu lay garder lutax ñu lay jema a euh, donc moy problème bi ñukay ñaawlu te di demander à toute la population sénégalaise de résister dans toutes les 14 régions, que ce soit à ou que ce soit à Ziguinchor, que ce soit à Kolda, ou Dakar, Pikine, Guédiouaï, FIP, on demande aux populations de résister parce que la dictature kenn du ko au Sénégal pouvoir Macky Sall constitution moo ko conscient de constitution dafa wax lu leer si ay base yu leer naññ la ko teg am na loo ci droit donc nous, en tant que député duñ ko nangu duñ ko seetaat donc loolu nañ doon bu bëgg wax population sénégalaise la violence bi si Macky Sall le jóge moom exercer violence peut-être exercer na Guy Marius il est là blessé il est interné à la clinique ak suñu collègue Rama Bodia moo ngi après mun ngeen ko donc elle est également blessée. moom aussi dañ ko dorbal non ñoom ko donc par la kon du Guy d'orbal. kese lañ dóor bal. Guy Marius suñu collègue Rama Bodia moo lacrymogène la grenade nañ grenade lacrymogène kuy dor grenade lacrymogène kay xam nga ci mais doo directement ça veut dire que c'est cinq personnes au moment où nous wax ak cinq personnes leen cinq personnes kay mais soxlawul ngay de ay grenades en plus c'était cinq députés du groupe Yewwi Askan Wi. donc qui là des députés du peuple. donc ñu koy ñu koy déplorer di ko ñaawlu ko fu ñaawlu et on demande à Macky Sall d'arrêter ah sinon c'est le peuple qui va l'arrêter. merci beaucoup honorable.